ko ñaami so wonaamo yendi dañata ɗoɗe ndaare aduna koye fulti foyde maagore jam ko heewi e dow golle bonde en ɗam boni ndaare duna fulti fuyni won heɓe woyoɓe kono won jaɗoɓe ابن هلي ولي جلي سوانا مو يلي دنيتا بنيامي سوانا مو يلي دنيتا دولي ndare aduna koy fulti bonde bonde en ɗon boni daretuna futin wini wali jali so wona mo yeli dañata ko ñaami so wona mo yeli dañata dole ndaare aduna koye funti foyde a ah, gore danya ko ñaami so wona mo yeli dañata dole ndaare aduna koye funti foyde ko heewi e dow golle bonde en ɗon boni daretna futti fuyni won mm, heɓe woyoɓe kono won janoɓe ba tey ni ma leen ko waxee Omar xaro

Omar la tudd euh, yaa am li mu wax sànq vingt-huit ans la am xale la am na soxna nag euh, mais doy na waa li bëgg xam ndax mooy jot na am doom wala jotul am doom. non non jotul am doom nag vraiment jotul am doom. am bu bu bu naa leen toll wala ñaata mois. trois mois lay def sax waaw dafa taxoon ba pare mais après. mariage am naa fekk mariage moom si trois si fekk trois mois la ko wala ko def. Mhm. yéen ñu njëkk ci néeg bi bi ngeen ñëwee daal li ngeen gis mooy que ni fii la pendre boppam di wàcc di lagg mais moment yi ngeen di ñëw fekk ngeen ni gis ngeen ni xam ngeen ni kii euh, génnaat waaw boobu ñu lañu fekk bon lamine bi génn na lamine bi loos bi dëng na ñu xam ne bon ça y ko quoi mm. si la profité tëj bunt bi nga xam ne gars bu ngeen lal tam loo xam ne liggéeyu liggéeyu yoon lay nekk parce que premier suspect yi ak préfet yi duñ bëgg kenn la demee quoi tam daf bëri risque quoi le fait que mën nga ko laal yoon ñëw def liggéeyam bu defee seen dañ ne kii kat loxo laal na ko en plus yoon mën na si topp c'est pas sûr mm-hmm. miir bi gas ko yombul lan nga jàpp ne moom dafa yoroon ay ay daf ko préparé quoi dafa yoroon ay batal yu fixé bokk c'est ça que je me dis dama ne lii yombul parce que boo xoolee mara bu ñu fekk mara bi boo xoolee amul doole sax voilà mais matt nga xam dafa am ñaari bopp yu sew yi nii moom lañ ci fekk matt deetu bon ñi ñëw def seen liggéey xamna naa ñoo balé ak benn vis bo xam comme épisode bën bën rek num mu toll na le fa dal xamna dok lu yàgg peut da ko préparer kan même ah. portar yooyu bu ko mën bu mën jappandu mhm. parce que kon fi eh, rek la mën a fix ba bi bëtt bi rek la mën fixé ya, wu pour mën pandu bopam mhm. après buum bi buum bi mu ya, pendre ak yépp ya. police ko jël waaw ñom xam naa ñom ñoko jël ah benn kor la xam si tool daal lañ xam ne bàyyi naa ko xel daal. Mm-hmm. kon ñu ngi bàyyi yoon def liggéeyam ñu ngi xaarandi baxagul leen ba tef si bu kañ lay war ngeen ci toll ak yooyu yéen a ngi xaar. waaw d'ailleurs actuellement suñu frère ñoom ñu ngi hôpital. voilà ñoom lañu daal ñoom daal la ñuy déglu de toute façon. waaw lu ñu si mën a jàppale rek ñu jàppale si ñoom ñu jox teel ñoo jox suñu koor daal si lu mu si mu mën a gaawee rek dañu dimbale quoi. ah ñu mën koo denc. ñu mën koo denc fii lii moo xewoon fii ci Thiaroye Touba Thiaroye ah, benn jeune boo xam ne mu ngi tudd ci Omar ah, toll ci ñaar fukki at ak juróom-ñett 28 ans moo génn àdduna sabab génn àdduna bu ne dafa xaru dafa jël corno takk boppam ah, heure ndogu bi muy jot nag ci la pendre boppam ba ñàkk bakkanam eh, néew bi nag ma nga fee ci hôpital ci ñi ngi xaaral yi nag peut bi génn lan lay génn ñu mën ko jébbal boromam bëgguñu kenn nag mais daal ñu ngi bàyyi li nga xam ne moom mooy yoon mu def liggéeyam wóolu nañ suñu justice te xam ne ni bu ko toppee dina xam exact lan mooy fee bi li ci doy waar daal mooy bindul rapport bàyyi fii waxtaanul ak kenn daf ko jàppoon ci biir xolam ndax xaru nag boo koy def moom du nekkul la tëb def ko am na loo koy préparé parce que bu gis ni mu préparé yëf yi ak ni mu bëttee fii ak cordon bi kon préparé na ko surtout heure ndogu nag pour nit

waxtu daaw ko raw lan moo ko war a poussé ba tax mu def loolu dina jaaxal ñu bari mais daal yàlla xam na te yàlla mën a leeral yàlla yàlla leeral lépp Dakar Buzz nag li may wax rek bu déggee benn bés bu dégg ci liggéey naa ak foog naa dafay dem fa yëf yi am laaj leen laaj na lu yaayam laaj ay xaritam laaj ñi nga xam ne ñooy jege ñaari ak ñu njëkk bi fee bi amee li ñu si wax dégg ngeen ko yàlla yàlla